et trois à Mbour. aussi un cas importé à Velengara dans la région de Kolda. Sept patients ont été contrôlés négatifs et déclarés positifs, guéris. Après le décès à domicile d'un homme âgé de 88 ans,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 ci juróomi téeméer ak juróom-ñaar test yi ñu def ñeent ñaar ñoo ci positif maanaam ñeent fukk ak juróom contact juróom-ñeenti yu jóge benn ci Sangalkam ñaar ci Mbao benn ci Tambacounda ñaar ci Touba ak ñett ci Mbour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 ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci opito yi ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci cas bu njëkk bi senegal waññi na juróom benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn cas ñaari téeméer ak juróom-ñett ak fukk ak ñett wër nañu juróom-ñett ñoo ci ñàkk seen bakkan